avant tout damay nuyu ñëpp ñu teew fii di kontaan bu baax a baax a baax parce que ñëpp teew boo ñaa kontaan na de waaye sama confrère lutteur yi teew loolu moo ñu gën a bégloo parce que ñun ñëpp ay frère lañu waaye ñii nag pour ma jox leen ku nekk sa wàccuwaay dama leen nuyu di nuyu suñu mag suñu lépp suñu doyen suñu grand Pikine suñu royukaay suñu lépp muy Eumeu Sène le grand champion maa koy nuyu di ko ziar bu baax kon li ma ko wax chaque jour rek ma ne ko mujj woo puso bi mu réer ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di nuyu suñu doyen bi nga xam ne moom Seck le grand champion Koba Sow di ko nuyu mu ñëw teewal fi Modou bu ñëwee Modou loo ñëw la bu ñëwee Franc mi ngi ñu toog maa ngi koy ziar bu baax Golo Sock maa ngi koy nii le grand champion de Tarkinda Siteu mon frère ñu ngi lay bu baax a baax baax di nuyu Baba Ndiol gëm sa bopp suñu copain suñu doom lay dafa mbër mbëru xale yi mbër bu saf xaram moo koy déggee bu baax a li di nuyu suñu frère suñu doom lay suñu lépp di nuyu tag mbër yi nga xam ne ñëwuñu parce que am na loo xam ne foo ma leeroo ko sama téléphone amul mbër bu mu bàyyi ku ci nekk man booñaa par rapport ak télé bi di ma gis jot naa sama téléphone woo tous les grands champions nag waaye dëkk bi dafa xat soxla yu bari am na yoo xam seen xel a ngi fii sax waaye ñëwuñu waaye seen xel a fii mais ñii bu ñu ñëwee rek ñëpp ñëw nañu donc rafet na ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp suñu papa yi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw ancien gouloir yi ñun bu ñu bëggee làmb ñoom ñoo tax ñu leen nuyu bu ñu limee dañuy limee ñu nuyu ñëpp jël nañu bi def ko suñu papa Maxime Bargal jox ko papa Mansour Diop mu joxoon ñu ko ñëpp ñëpp ñëpp incha allah waaw di nuyu ñëpp di nuyu Lac de gis naa ne père Rhone moo ko teewal mi ngi ne leen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Rhone ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw gaa yi li ñu waxtaan fii pour ñu tënk ko dafay yomb situation bi ñu ñëpp ñoo ko gisandoo dafa am loo xam ne dañ koy teel a wax mooy dañoo nekk situation boo xamante ni contexte bi ñu nekk mooy contexte coronavirus moom amul kenn kuy naataable ni feebar bi mi ngi fi te feebar bi lu la. te ñun mbër yi dañ ko nangu bu baax ba xam ne feebar bi existé la te feebar bi ku ñu mucc yi ñëpp xam nañ ko dañuy takk suñu mag dañuy respecté distance yi dañuy utiliser les gels antiseptiques te loolu ñu ngi ci chaque jour loolu moom nataaloon na ko pour état bi mu xam ne ñun les lutteurs dañoo nangu ne feebar bi lu existé te ñu ngi wax suñuy nit bokk nañ ci ñun mbër yi ñu njëkk a defal ay match waxuma la balaa ñuy dajale ni mu dajale di ànd ak Gris Bordeaux ak Matar Bale ñu defal ay max bu ne mbër bu ne def ci logo di ko jox sa fans club yi loolu gis ngeen ko mu ngeen ko seede si te gis naa ko ay maxam Reug Reug noonu man noonu ëmma keneen Papa Sow ku nekk donc ñu xam nañ ni feer bi lu existe la mu ngi ci dëkk bi mais dafa am loo xamante ni dama ko yàgg a wax mbër yi ma benn instant lu ñu xañ tuuti mooy suñu adversité dañ ko commencé di ko boole si suñu intérêt collectif ñun ñu toog fi ñëpp teewul bu liy jeexee rek bu avancé taxawee dañuy bëre dañuy xeex parce que loolu mooy suñu métier waaye nag bu ñu demee ba war a défendre suñu intérêt collectif dañoo war a booloo bokk ndey ak bàyyi ko défendre suñu intérêt bu ñu buggee fii yëpp ku nekk da ngay ñibbi sa kër nga jëm nekk say entraînement ak say staff bu ñu waree bëre ñu bëre xeex parce que mooy suñu métier mais bu waree taxaw ñu défendre suñu yëpp ñu ñëpp dañoo war a teew gis nañ làmb ji gis ngeen nu mu demee mu tëjee yàgg na comme ni ma ko waxee dix mois ngi bu ñu xoolee yéen presse yi ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp a ngi liggéey ñu ñoo liggéey ñu bëri ba pare nag ñu gore kenn dégguñu ñu ngi jàpp suñu ñàmbur kenn xamuñu ba xam suñu dépense manqué na kenn xamul ñu ngi jàpp suñu ñàmbur te dañoo dajale suñu fond muy fond Covid bi ëmb mi nii mën na ma seet ñu ànd ak Gris Bordeaux ñu yóbbu ko ànd ak Matar Ba ñu yóbbu ko ministre de santé jox fa somme bu bari mm-hmm. te boobu ba léegi. ñu ñëpp ay impacté lañ ku xam ne amul kenn ku gën a impacté ci Sénégal que mbëri jël benn avance di xaar 10 mois pour bëri mais dañoo am suñu fulla suñu fàdda suñu personnalité toog jàpp suñu ñàmbur loolu rek dafa war a tax lépp lu ñu war a def rek koy bàyyi mun ngaa bàyyi ku nekk mu bëri mu def lu mu métier mais nga gersu làmb parce que mbër yi dañoo ànd ak góor ànd ak fulla ànd ak fayda jàpp seen ñàmbur te loolu dañu war a rafetlu la gis na situation bi nu mel fi mu toll nii lu des mooy comme ni mu ko waxee rek ñu proposé ay protocole sanitaire parce que bëre moom moom lay ñaan te état bi mu ñuy teg te ñun bëre yëpp suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey keneen mi ngi liggéey ñun nag dañoo am fulla fayda boo xamante ni génn ñu sànni ay xeer génn wuñu offense bi la état génn wuñu marche dañoo jàpp suñu ñaamul mais boo wax jotee bu gisee ma gën a organiser li nee naa leen ku ne mën nga fu ñu di wax mais lu am solo moo ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul booñaa moo yor que booñaa moo gën a tuur ci mais dañoo war a wax ñun ñëpp pour gars yi dégguñu offensé wuñ kenn nag mais làmb ji fi mu toll nii ay pour proposition rek moo des mooy làmb ji ñu ubbi ko ñu ñu bëri loolu nag forcé wuñ ko mais état le président ak Sall ñu koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb dañoo tabaxal arène nationale plus de 32 milliards investir ko pour def loolu lu ñu wax ne faalewul làmb waaye bëgg nañu beaucoup plus de considération état jox ñu ko parce que ñun bëri élection yi ñu ngi fi président dëkk bu mu dem rek bu demee parcelle dina tur jaar ci turu Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine dina ne Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang keneen ak keneen parce que loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection la bokk mais ñooñu nag après bu yëpp jeexee da leen delloo lu ñu moom lu ñu moom mooy ñu ñaan ko ko mooy ay mbër lañu làmb mooy suñu métier. waxuma la ñun ñuy toog fii parce que sant yàlla ñun ñuy toog fii yëpp ku ci xëy di nga am dépense ñu ngi mais dafa am suñuy rakk ak rakkaar yu nekk ci suuf yoo xamante ne ay mbëru 60 mil la ñuy ay mbëru 100 000 francs yooyu dafa métti ci ñoom trop te ñun ñi waruñu nangu mu mu ñu mujjee puso bi mu réer ñun kon suñu rakk yi dañuy jam donc ñun dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk yu war a bëree te loolu moo jaarul ñoom ñëpp dañoo war a ibbi làmb ji ñu bëree ibbi làmb ji bëree nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar mi ngi mais ñu respecté ci change ci stade bi mun nañ def proposition boo xam te stade bi gis a arène nationale nu mu yàññee siège bu ñu toog beneen siège bi ñu tëb ko beneen tëb ñu toog organiser ko ñun bëri ay responsable la supporteru làmb dañoo bëgg làmb te xam nañu làmb lu muy apporté te ñoom tamit ay responsable la noonu la demee noonu la demee te loolu lu am solo la ñu teg ay proposition daan ah ñu kat bëgg na leen ubbi làmb mais nii ngeen di def da ngeen di bëri ci biir kuréel bu ne da ngeen di bëre bëre boo xamante ni chaise yi bu ci toogee benn dañ koy tëb seen i supporters ngeen wax ak ñoom ñu respecté wala mbër bu ne may na la tant de boo xam ne maximum moom koy dugal li nga xam ne mooy gagne-pain mënoo ko xaaj téye ko bientôt un dafa métti pour suñu rakk yi te am na loo xamante ni foo ngeen bàyyi ko wax am na suñuy rakk yu bari yoo xamante ni ñu wax ko ak ñu wax wax mbër yëpp a ngi nii am na suñuy rakk yoo xam ne dañu dem ci géej gi te ay mbër nañu woon man bari na ci xamante ni bari na yoo xamante ni su ma ay frère yoo xam ne ay rak dañ may woo mbër yow kii yu bari maa ngi ciy génne man leen gaan lu jot yomb jarul yàkkam bi dëgg affaire yi métti na mais nañ moo tax ñuy ci ndox mi waaw ñuy jaar képp koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ndox mi ak képp njaboot bu ñàkk bakkanam ci ndox mi mais di leen wax ne situation làmb moo tax yooyu yëpp am làmb gaan bu ñu nekkee di bëri mbër yi di bëri Sénégal di bëgg làmb di neex doo dégg situation yooyu booy même bu amul dara sax dañuy def dund làmb seeraan ko béeg bu ñu paree dañuy def tëddi nelaw lu ñu lekk baax na parce que gis nañ benn Papa Sow bëggal na leen gis nañ benn Siteu mu bëggal leen après lu ñu am baax na dañuy dem tëddi mais booy bu ñu gisee amuñu dara ba pare fi ñu doon waree dem dindi fa seen stress yow tëj nga ko après booy duñu xam fu ñu jëm quoi dafa métti côté mm. boobu ñu bàyyi ci xel parce que suñuy